tam xarit gi yal nañ ci xam ci tam jënd say ginaar dàq jàpp. ci sunuy maam ba sunuy maama dàq jàpp lan daal di togg ay cere. sunu reere ba pare na këpp. ak a soq ka war na dañuy tam xarit suba. dañ daa togg ay cere. reer daa def dañ daa sañ kii soq wal di mooñ ak a say. te moom am na wuute. ndax danga daa jënd yàpp tey ji yaa ngi rey say rey say ganaar ban xam nga wute nañ ñaan ci la nga bëgg ñun moom lañ xam ci tam xarit waaye gone yi léegi ñii ngi togg ay ay soos ñii ngi togg ay tufe ñii togg ay salaat ñii di rago loolu xamuñu loolu nun cere tam xarit ci sunuy maam ba sunuy maamaat togg cere lañ ca xam dàq ginaar dàq dàpp togg këpp ñaan ci yàlla xéwali yokk loolu lañ xam ci cere itam xarit tam xarit wax dëgg yàlla damaa judd fekk ko xam naa ne daal dinañ ci def ay cere ak def ay taaja boon waaw njaayam ginaar yi itam wax dëgg yàlla dox na lool. waaw wute na maam yi moom cere cere rek lañ ak gox tey ah wax dëgg yàlla nañ ko daan defee rek lañ koy defe de togg ay cere boole kook yàpp loolu lañ koy doxale noonu. waaw dama xam démb ak tey am na wute bu baax a baax a baax li ko waral nag du lenn mu lu ñu wax mondialisation moo ko waral maanaam mooy adduna bi léegi ni mu gëndaloo ndax tey tamxarit bu amee ñun niñ koy feetoo mooy dañu mën rek ku nekk ku nekk ci 31 décembre lañ koy feetoo alors que demul noonu. moom daanaka dem nañ ba léegi toggatuñ cere yi léegi ay salaat ak ay soof ak loolu togg ndax jamono daa soppeeku xam nga mag ñi njëkk ña cere. léegi nag gone moom daanaka toggatuñ cere moom xanaa barkeelu ci rek. am na wuta kay. am na kay ndax ñii ngi togg cere ñi di togg ay soos. ñëpp maase woon nag ndax mag njëkk na ñëpp daa maase togg cere këpp woo sax njaboot ñëpp tiim di lekk léegi nag daa amatul ñii dañuy togg cere ñii duñ togg cere waaye mën da sama kër cere laay togg. am dañ ci cere tam xarit moom lu mu mën loo mën togg togg ak loo mën am am rek cere nga ko mën. ak a jal jal ak jal jale suuf xëy bi njëkk daara jëf rek góor ñi di sol yére jigéen ñi tam xarit ñu xama ñu taajamul ñu dugg ci kër yi di taajamul ak ñu leen di jox ay kii ak yëpp ñu leen di reet yëpp seen yëpp di la maam njëkk noonu lañ ko daal rek mu reere ba pare mu reere pare gut am kolkol def ko si baat bi def ko si bool bi kap buñ xëy ñu def ci ndox ñu def ci ndox kenn ku ne sëlu dafa baax day tax doo wànneen ah wax dëgg yàlla de ma daan gis rek laa gis ñu di ko defee dégg naa daal jigéen ñi dañuy taaja booni xale góor yi forcé ni dënd ñoom wër di taaja booni waaw. man da maam yi lam daa def rek laay def ba nëgën waaw këpp ñi nga naan aada la ak waaye du aada dëgg la ndax cay maam bay maamaa loolu leen daa def boo bayee mu yomb loo wuti yomb léegi nag yëpp a ndax ñëpp lañ daa def dañ koo defatut ñii ngi def ay ginaar di soos ñii nag defuñu ñii di këpp te ñëpp maasee di togg di cere di këpp. di ñaan ci yàlla lu waaye wuti am ko mbay mi nag gàññi dugub ji nag gàññi léegi nag léegi lii am na lii amut lii moo ko waral nag waaw. fii Tuubaa nag moom ak Njaaréem daal moo ti mu triangle mar dis moom macha allah foofu moom ñu ngi koy dundee dundee gu am solo mais boo génnee nag yeneen yeneen dëkk yi nga gis ne kat dañuy boole ci jigéen ñi di taxawaalu ak fecc ak tëgg loolu moom bokk suñu aada suñu culture du aada du culture. ah ñaan yàlla fekk ko defal ko ndax yoo xamee ne rek atum jullit ñi teru na bañ am ci fukki fan da ko jiitu sax mooy juróom-ñeenteelu fan boobu noonu sëñ bi daana digle ñu daan woor tey dinañ ci woor teg tamit dinañ def beneen mbir mooy li ñuy wax ay ñoom tusngalu suba dinañ ko def ak sangu ak saraxe yëpp dinañ ko def doonte doonte sax ne ñenn ñi ci ci ban xam-xam dañ naan tusngalu ay sangu ci yooyu du sën na waaye ñun moom ba ko sëriñ bi mu ci masaal gi rek lañ daal di gëmm tax lu te waxi ban xam-xam yooyu kon ñun dañ fas yéenee woor dinañ ci sangu dañ ci tusngalu ngir topp ci ndigalu sëriñ bi tekki tamit tam xarit dinañ xam beneen mbir maanaam mooy ma ngi dañ naan ku dee gudd tamxarit déwén ngay ngay reggi déwén ngay reggaat te ñu xam ne tamxarit li ñuy togg lu ëpp mooy cere loolu kon dañuy def beneen jàngat mooy ne tam tamxarit kon cere yi ñuy togg muy suñu loo xam si fi lañ ko bayee muy suñu lekki maam dañ cee war a bàyyiwaat xel baax a baax mooy di lekk la maam nga daan lekk woon def kon dinañ wér dinañ suur dinañ regg faatu mi ñuy gën a jege war nañ ko a baax waaw commerçant mi defee chaque six ak bilan xool commerce mbaxam ba nu demee loolu war ko def ci at mii mooy daal euh, régler suñu bopp lu leen di ñaan xanaa yàlla indi ñuy xéwal yi baree baree bare bari ak gudd fan ak wér ak njaboot gu barkeel te yàlla jox nag njaboot suñu njaboot ñu am lu ñu yore suñu njaboot gi yokk ba yëg ko ñu wopp yàlla nañ wér ñu nekk ci hôpital yàlla nañ wér ak jàmm. ñi police yi tëj yàlla leen yàlla tijji ci jàmm. Sénégal te maa ngi leen di ñaanal ci jàmm yàlla nañ am jàmm ñëpp am jàmm ndax bu ñëpp amee jàmm rek bu Sénégal amee jàmm ñëpp am jàmm yal na leen sëñ Fallou defal jàmm. xanaa góorgóorlu rek jéem a daan sa doole sax ci ak njub mooy ko ay tere man de loolu lay santaane. fekke déwén yàlla def xewal yu ne gaañ defal ko bépp jullit barke sëñ Touba. nga xam ne élection dafa jublu si. mu bëri ab xumbaay mu leen di conseil maanaam ñun ñëpp ñu tee ku ne rek daal di xool ka nga xam ne moom nga gis programme am pas nit ki gis nga programme doy na la nga wooteel ko waaw lépp loo xam ne daal day waral jàmm rek nañ ci dox waaw suba ngoon ba réew mi nag moom pour ñu trouver solution paix totale ñu am ko ci réew mi dañuy topp njàngalem sëriñ bi waaw muy njàngalem sëriñ Touba bu ko toppee ba ne moom ndax réew mi ñëpp ñëpp ñëpp xam nañ ne ki fi ëpp jàmm ci addi moom suñu ndaxaala moom loolu ñëpp xam nañ ko kon nag lépp am jàngalee moom gëm moom solution dina am ci jàmm tranquille am ci suñu réew mi Sénégal